ami internetu AG Pro TV ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax a baax di dajawaate yéen ci seen info di jour waaye nag képp rek koo xam ni abonné go ci seen bile ñu wax nga daal daw abonné te activé rek li nga xam ni moom mooy cloche de bi ngir ngeen di mën di am suñu ay vidéo temps lamb lan koy daal di doore mu mel ne rek kii di Modou Anta Gueye bu da bu Thiès rek gannaaw rek ba nga xamante ni daal dina def rek li nga xam ne moom moo di année blanche gannaaw ci bu mu jógee ci défaite bi doxoon ci digganteem. moom ak kii di Diène Kairé moom nag Modou Anta Gueye moomule moom nag daal dina rek am combat dox ci digganteem ak ki nga xamante ne rek moom moo di Alioune Seye numéro 2 Alioune numéro 2 nag bu waalo rek moom nag ci daal di victoire rek la daal di jigéey dox ci digganteem ak ki nga xamante ne rek moom moo di Zos moom nag combat boobu lay nekk combat boo xamante ne rek combat jànq la waaye nag combat boo xam ni combat de risque la waaye combat choc la ndax nag ñoom ñaar rek daal dinañ leen di xamal rek kenn ci ñoom ñaar rek warul rek daal di jël défaite ci boobu lay combat. ndax lu ko mooy rek dina leen dugal ci li nga xam ni moom moo di saaku biile ñoom nag daal nañ xam ne rek combat bi rek bu fekkente di rek jàpp nañ dat bi ci kàttanu suñu borom ñoom nag lépp rek loo xam ne rek war na ko ci rek dinañ ko ci def te nag maanaam rek bëgguñu rek maanaam combat bi di kon doon combat boo xam ni euh, combat bu soof la wala combat boo xamante ni dañ koy naatable dinañ ko teg fi ñu ko war a teg waaye nag dinañ ci def li nga xam ni moom lañ ci rek daal di war a def mu doon loo xam ne nag combat de. qualification lay daal di nuru mu mel ne nag ñoom ñaar ñëpp rek ku ci nekk rek toog ay at yoo xam ni bëriwuloo eh, te nag ku ci daal di daanu rek di nga daal di jàll ci li nga xamante ni moom moo di saaku baar ñoom ñaari mbër yi nag daal di xaw a rek nuroo tuuti li nga xam ne moom moo di palmarès ndax bu dee moo dugg Anta Gueye moom daal na rek am 22 eh, combats rek daal di ci am rek lu tollook rek li nga xam ne moom mooy 17 euh, victoire kii di Aliou Seye numéro de nag moom def na 14 victoire rek ak li nga xamante ne rek moom moo di 6 euh, défaite mu mel ne rek combat boobu nag combat bu métti métti métti lay dox ci seen diggante ñoom ñaar ndax nag kii ci victoire la jóge moom ak Zos di Aliou numéro 2 waaye moom moo di Anta Gueye daal di jóge rek ci li nga xamante ne rek moom moo di euh, défaite dox ci digganteem ak ki nga xam ne rek moom moo di Diène Kairé mu doon nag combat boo xam ni combat risque la waaye nag combat la boo xamante ni buy leeral seen ay yoon la ñoom ñaari mbër yooyu le lii moo gënoon a fees mbokk yi tey ci xibaar yi ñu jox nañu dig daje ba beneen yoon incha allah.